asalaamualeykum mbokki Sénégal man Mahammed Boun Abdallah Dionne maa dellu si tey di seen candidat di waxtaan ak yéen ci mbiru pétrole ak gaz pétrole ak gaz nag mooy li nga xam ne moo gën a tey nekk waxtaan ci réew mi li nga loolu moo gën a nekkit potentiel ci réew mi ah, ñu ne am pétrole yomb na wante exploité ko moo jafe exploité ko it dafa laaj xaalis bu bare bare bare bare moo tax ku moom petrole bi ak gaz bi nga xam ne moo nekk ci réew bi loolu je pense important question la boo xam ne ala kulli al il faut ñu waxtaane ko ndax am yaakaar ne pétrole ak gaz mu ngi ci réew mi te moom moo ci lu dul booba am nga problème ndax ndaw yi dinañ am yaakaar yaakaar bu tas mag ñi dinañ am yaakaar yaakaar bu tas jigéen ñi dinañ am yaakaar yaakaar bu tas loolu c'est important pour ñu toog liggéey saytu yoon yi nga xam ne nu ñuy def ba moom suñu pétrole ak suñu gaz moom sa koom loolu lu important la bépp contrat buñ fi voté ci pétrole ak gaz wala sax même ci minier dinañu ko saytuwaat waxuñu nag dañuy nationalité déedéet mais dinañ toog ak société tubaab yooyu ko yore xool ak ñoom nan la ñuy def ba insha allah ñu jël ci it suñu wàll ndax mënuñu continuer ne pétrole ak gaz ba pare duñ ci moom dara li ci des bu ñu moomee suñu pétrole ak suñu gaz ñu fexe ba nga xam ne benn sous-traitant yi ña liggéey du ñu nekk ay sous-traitant yoo xam ne tam ci bitim réew lay jóge loolu la ñuy wax local content le contenu local mu nekk ay doomu réew mi yuy am ay société ci biir ndox mi kenn umpalewul ne pétrole la gaz bi ci biir ndox mi la nekk donc loolu tam dina ci liggéey insha allah ba li nga xam ne moom la pétrole la gaz bi di jur muy rester ci biir réew mi